Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour la cloche de notification. moom doomu dégol bi ah ma war a wañaa doo ñu noonu di de ah capacoli bi doomu Pikine bi li mu duy arène nationale càppa cooli baa ngi de ndeysaan le fils de De Gaulle le fils de De Gaulle noonu moom Boy Niang 2 xam nga ni xamante ne moom mooy Balla Gaye far moo échec mais teewul ni mu ngi toujours ci poids euh, ci luur yi daanaka kim jël ak Balla daanaka benn la de benn la parce que bëri na ak Balla Gaye taxawee ci balance dañuy neexoo ñoo tolloo dayu ñoo tolloo dayu cëy bii bis mais il a léetoo loolu mais xaw ma lu léewtoo indi marqué na ah. marqué na retour am en ah, allah parce que xam lu neex. mais dama seetlu benn affaire Leewtoo saa yu naan làmb est-ce que ténor dinañ bëre Leewtoo ñëw wane boppam. waaw mais Leewtoo noonu la ba pare ay combat de choc la international war kaa feesalaat. parce que te Tapha du ko ci bàyyi. ndax bawal 100 pour 100 bi. temps mooy loolu de. nee na ma liñ ma doon nax jeex na ci làmb. déet waay Tapha Tine nee liñ ma doon nax jeex na ci làmb samay mbir laa bëgg a jël. ah kon du yomb de. laa ilaaha. moom kay kolootina la ñuy wax rek tey voilà. pour gagner combat boobu léegi parce que daan tafaatin taxul nga nga bëreeg Balla Gaye daan naa wax ne leen léegi bu journaliste ñëwati di wax booy Niang dara parce que ñëpp xam nañu booy Niang bëgg na bëreeg Balla Gaye léegi maintenant il faut que Balla Gaye leen ni moom bëgg na bëreeg booy Niang loolu moo tax fi mu nekk nii Balla Gaye dañ koy ñaanal yàlla mu bëre combat ñun aussi ñu ñaanal suñu bopp yàlla ñu bëre combat te ñu réussir mais bëre euh, daan tafaatin tey jii ça ne nous donne euh, euh, le droit ñu dem bëri jeeg Balla Gaye Balla lay neex rek ñu bëri moom neexu ko du ñu bëri moom waaw. waaw muy lu leer ñu ñëw sa combat ak Tapha Tine Tapha amateur yu bari. wax lu làmb ñu bari ko tàllal micro mu ne Tapha Tine dafa bokk seen biir gars yi dañ koo ragal nangu ko jël xale bi am fitu jël ko motivation boobu yéen yéen si dugal booy bi wala booy bi moo pare pour jëflante waa ji non loolu moom mun naa la wax dès maintenant man dama amoon habitude saa yu ma laajee man leen man maa ñemewul Tapha Tine loolu su ma ko waxee parce que boobu ñorul amoon na yeneen combat yu ñu doon tudd du ñu tudd ay combat ngay ñëw di ut beneen combat di ko dugalaat ci diggante bi mais bi ñu demee ba xam ne Balla Gaye moom bëriwul mais pare nañu pour bëreeg Tapha tafaatin Tapha Tine mën nañ ne mu sut Boy Niang diis gan mën a xeex koo wax mu ne la Boy Niang dëgg la mën na xeex mais xeex yi bokkul est-ce que Tapha Tine du ko wàcce yéen ngeen jël waaw xam nga xas jëm ci pays xas jóge fa moo ko gën xam nga di dugg ci benn dëkk doon naan tey ma toj dëkk bi nekk bay génn ne toj naa dëkk bi moo ko gën a wóor tey ay danaa wàcce diw ak naa def lii loolu ci côté stratégie la loolu man duma ci wax agum dara waaye xam naa ni am nañu potentiel boo xam ne mën nañoo bëreeg Tapha bu dee problème mu taay kan kon Ama Baldé du ko daal ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne sax moo leen sut ba combat bi newul foofu combat bi fi mu nekk mooy ñëw ca bés ba indi forme indi capacité bu la permettre pour nga réussir combat bi te yéen xam nga ne boo Niang bi mu commencé ba léegi chaque fois suy ñëw dañuy gis beneen forme bu bokkul ak bi mu yoroon bu ñuy jël dolf yéen a ngi fi woon. noonu ko sacrifier. bi ñuy jël dolf ñëpp dañ ne kii waroo ko booleeg dolf parce que dolf ko ëpp doole. bi ñuy bëreeg Sakajor la même chose hmm? bi ñuy bëreeg lees da dañu ku ne gis na li li li li li def euh, li li astafurla lees de def contre non non non li lees def contre Modou Lo keroog chance dong moo may Modou Lo euh, victoire mais terewul bi ñu bëreeg moom yàlla daf ñu def daf ñu dimbali ñu daan ko sans problème hmm? loolu la ñaan aussi ci làmb ji ñu réussir ko avec brio parce que loolu intérêt làmb la. waaw ñu bari ñu ne Boy Niang moom day déclencher xaar nga ñëw ñu ne Tapha bu ñëwee tee boobu comme ni Lac de Guiers def est-ce que Boy Niang day ñëwaat def comme ni mu def contre Lac de Guiers. non dama lay noppal lépp luy stratégie du ci wax mais loo ma laaj ci préparation combat bi hmm, ci li ñu war a def ak tamit structure bi nga xam ne mooy Leewtoo li mu li mu def li mu réussir. ñuy ñaan yàlla aussi mu réussir ëpp loolu. le retour. ay jënd la waa Leewtoo. oh soxal na ko. ah le retour de voilà. voilà. yëpp waay. waaw fas tey ñu rempli sama contrat rek waaye loolu moo fi indi waaw bu ñu egg rek incha allahu rabi. waaw mais lépp lépp sant yàlla la quoi. waaw du mën a dañ ma ragal duñ mën a di dara. làmb la woon xam nga. Euh, kenn ku ne yaay taamu ki ngay bëreet looloo xew ci làmb ji yàlla may na ma combat maay sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin di sant staff bi ma doon xelal yëpp nag ñu anteek dal ak réglé ak tey alhamdulilahi rabbil alamin quoi waaw mais lépp sant yàlla la ko quoi xam nga àdduna yàlla mooy dogal dañ koy nangu ak lu mën a am yàlla mooy dogal heure bii la yàlla dogal na ne ci laay am ak maa ngi koy sant yàlla bu baax di sant képp ku doon ñaanal naan tafaatin yàlla na nga am combat yàlla may na ma combat maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp voilà. gis naa sa combat mu ngi Leewtoo moo ko tëggoon bi waaw en même temps Pape Thialis di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla di xam ne xam nga jàmbaar la aussi guerrier la ñu ngi koy ñaanal xam nga bu gën a jëm ci kanam quoi moo tegoon sama combat passé contre Yékini Senior. voilà mbokk yi ñu ngi mbay euh, Mbaye nekk écurie Bawol mbooloo maa ngi siyaar maa ngi lay dellu siyaar di la ñaanal jam ak xiiwal ak tawféex ak taysiir ak sëñ gaawan waa Bawol dañoo làqatu woon de lu xew waaw mais noonu la foog ñu làqatu parce que coow li moo bari woon waaw Tapha Tine ko doon tudd ci ay combat yu bëri yàlla def ngeen jël booy Niang lu tax ngeen jël Boy Niang waaw am di nag benn combat mos a yàqoo ci moom amut mbëri ci làmb ji amut koo xam ne dox nañu sa combat ak am di mu yàq ko ci moom amul ñun moom mais nag xamoon na ne incha allah des na ñëw dinañu signé ko contrat. gars yi ngi doon négocier seen combat la Lac de revanche bi wala Boy Niang lu tax ngeen choisir Boy Niang. non ñun choisir ñu Boy ñun parce que ñun mos naa wax ci benn interview ma ne ku daanoon nu ta nu ngi lay may revanche ku nu daanoon ñaan nu lay ñaan revanche kon defe naa ne kun bàyyi ñu woon kenn. waaw mais Boy nekk xale boo xamante ne il est extraordinaire dangereux gaaw rapide bëreem du koy battre ngeen jël ko est-ce que wóor na. non leen loolu ngeen di wax. Boy Niang dangereux wul. Boy Niang wul. mbër la ko mbër yi rek. déet mbay Boy Niang du mbër yi ko mbër yi. la ko mbër yi day daan ñu koy daan rek. mooy moom sama doom la mais xam naa ne danger wul ko mbër yi. ko torop. déedéet sóoru ma ko torop parce que man tey làmb ji bu ma yoree ku toll ni am di. di am benn mbër bu may sóor ci làmb ji rek damay tekki sama ngëm ma bàyyi. mais am na dañoo gis ne moo am jafe-jafe ci diggante ma ki nga xamante ne mooy Ama Baldé mm-hmm. di tolluwaayu ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang mm-hmm. ngeen jël Boy Niang nga ne ma du la jaaxal. non loolu du jafe-jafe de jafe-jafe non du jafe-jafe calculam moo ko nax rek li mu bëggoon li mu bëggoon a def loolu la bo loolu la jëloon initiative def ko mais yàlla dafa dogal loolu antuwul mais du kese du jafe-jafe mm. waaw. am demul benn jafe-jafe woon. ñenn ñi xale bi dëkk Pikine moom booy ñaa jinne la. jinne ah jinne mu ngi ci daqaar yi jinne du ne ci kër yi. jinne du ne ci kër yi wax leen leneen mu ngeen di wax jinne na ne ci àll bi mais jinne ci kër du jinne. cappaacoli lañ koy woowee. ah kooku waxu xal la rek dafa am ñoo xëy dañ lay tagal say maam rek ah. naa la lii nga lii nga mais man gëmuma loolu. yéen waa Bawol da ngeen di wax chaque jour ni boo leen di bëree Bawol euh, day des ginnaaw jàppale bi day des loo leen ci gars yi. ah waaw mais loolu du ci ñun ndax ñun su ñu amee combat képp ku ko war a yëg rek yëg nga ko ku ñu ko war a wax rek wax nanu la ko waaw it xam nga nit ki doo dem ba këram jàpp ci loxoom ne ko kaay dimbali ma. kaay jàppale ma loolu kenn du ko ni mu toll ak tardement bi mu am par rapport ak xamante ne euh, su ma waxee moromam ñoom Balla Gaye laay wax ñooñu nga xamante ne ñu bëri ñooñu la départandoo rawatina ci claf bi ñeneen ñi dañuy wax problème ngemb lay am gars dañ koy jekku di ko daal. loolu lool loolu ci mbir yëpp la amul mber bu ñu fi jëkku ci sëriñ daan la amut mbir yëpp la ñuy jëkku ci sëriñ daan leen. mais moom gars yi dañuy wax ni ngembam. ngembam mais gars gars yooyu am na ci ñoo xam ne ñoo ko ëpp ay defet fuuf te ñu ngi bëre. ana ñi fi nekkoon ay roi des leneen taxawuñ ci ay huit defet ay dix defet. Ah, ba pare du moom du ama seen dong ama seen dong nga nekk ci làmb ji. Ah, du ama seen dong ama seen am na ñeneen ñu bari ay defet ci làmb ji ñoo xam ne ñoo ëpp Moustapha defet fuuf. li ñu war a wax la ñu waxul. mooy lan ah mbër yi nañu ñëw ñu bëre mais léeg-léeg lan la lu ñuy daw lu ñuy ragal lu ñuy daw. mais kon da gis ne gars yi dañoo ragal. dañoo ragal dañoo ragal a bëre moom mais du dara. mais lan ci moom ba ñu ragal bëre. amut amut tardement Ama Baldé amut ku mu mën a daan ci làmb ji dégg nga ko mbër yu mag yi gis yëpp kenn ku ne daan nga say mag da ngaa say morom daan leen ah bëre say say mag say rak ñëw daan la. mais kon nit ki bu ko bu bëree ak rakam rakam daan ko lan la ko waay ko war a daan mu daan ko rek. d'accord euh, Fa fu mu toll. am di muy fii léegi nga gis ko. waaw man soo ma gisee rek xam nga ne léegi nga gis ko. waa Leewtoo loo leen di wax. alhamdulilah ñoo ngi koy ñaanal. Pape Jalis mu yàgg fi lool te weer yal na ko yàlla sang sutura yal na yàlla dolli xiiwalam yal na ko yàlla gën a jàppale ba fu mu bokk ak rek mu ak fa parce que nit ku baax la. ku yaru la ku am ngor la ku am diina la ku am teraanga la noo ngi ñaanal nag mu yàgg fi loolu te weer parce que bi mu mitee ba miti man xam naa ne Pape Jalis am na fu mu ñu feete ñuy ñaanal yàlla na ko yàlla gën a jàppale